asalaamaaleykum euh, mbokk yi nuyu nañ leen euh, di leen dalal tamit euh, tey jii ci suñu jotaay bi bi ñuy faral di def ak produit Sissoko abatu Sauda yi comme ni ngeen ko xamee rek produit Sissoko Habbatu Sauda yi dañoo doon ay produits yoo xamante ne 100 pour cent naturel 100 pour cent bio et te amuñu benn effet secondaire te présenté nañ leen ay produits yu bëri tamit tey jii ni daa am beneen produit bu bees bi nga xamante ne Sissoko Habbatu Sauda dugal na ko ci marché bi produit bi mooy lan mooy huile Sissoko Habbatu Sauda huile Sissoko Habbatu sawda état bi nag tey jii nii dañ leen di wax lan lay jëriñ ci doomi aadama euh, loolu nag euh, ki ñu koy sëqal mooy si Sissoko ci boppam euh, mu wax ñu tey jii nii lu tax mu indil ñu huile boppam si huile Sissoko Habbatu Sauda mu def ci différence ak yeneen huile yi loolu bu weesoo tamit mu wax ñi njëriñ bu mu am ci wérgu yaramu doomu aadama Sissoko nuyu nañ la bu baax di la dalal te di la laaj tamit itam huile bi lu tax nga génne sa huile bopp ak njëriñ bi mu ñuy amal incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñu sa tur sa sant ñu sant yàlla bu baax jullit seen salaam ah gannaaw loolu nag bu ñu dee Sissoko gars yi dem nañ benn Sissoko Habbatu sawda ñu bari xamatuñu tur bi dañu ne Sissoko Habbatu Sauda ndax Habbatu Sauda lay jaay. ndax Habbatu Sauda la jàng. Mhm. jàng na ko si réew arab yi. Mhm. am si ay diplôme macha allah ah, di ko defar. moom jël ko rek di ko jaay nii daf ko jàng xam ko mhm. xam dosage yi mhm. xam naka lañ ko jëfandikoo mhm. jàng ko dem ay at jël ay cours ba yàlla may ko léegi xam-xam ba mun a ràññee bu baax ak bu bon bi macha allah kon tey maa ngi si sant yàlla bu baax a baax kon du kuré boo gisee ñu gën a huile Sissoko xabatu sawda huile xabatu sawda la si Sissoko mooy sama suur bi mooy suma sant bi xabatu sawda bi mu nekk nii ñëpp leen ma xamee kon man tey lépp lu may génne lu baax lay doon si mbir xabatu sawda macha allah ndax bëri na ay produits yi ma am lu bëri bëri bëri bu la si internet bi tapé si Sissoko xabatu sawda rek di nga gis ne Sissoko am na bu wolof am na bu soninke am na bu soose am na bu anglais am na bu français li yëpp Sissoko xabatu sawda produit am bëri nañ waa huile xabatu sawda bi moom benn la fi ndax dafa fort dafa baax dafa original ba pare dafa bio 100% bio 100% naturel. macha allah léegi nag ñu ngi sox su ruq bi. di defar suñu bagage yi baax yi. di ko wan ni ngi fii di ko génne bitim réew ñëpp di si jot alhamdulilah rabbi alamin képp ku jël bagage si a Sawda produit si Sokhaba Sawda di nga si gis sa bopp ak façon bu munte doon li mhm. dem si sant yàlla bu baax a baax di leen nuyu di leen gërëm di leen sant léegi su ko bien fait bu huile bi am lu muy jëriñ ci wéru doomu aadama waaye bii mhm. dafay renforce immune système bi doomu aadama am si yaramam mhm. dafay xeex feebar dafay dindi cancer si daf lay dimbale ba nga xam doo mun am cancer sa yaram bi ba pare dëgëral sa yaram si wàllu tension ak ndoxum siti ak problème yi sew sewaan yi góor yi di am ak feebar yi nga xamante ne bi jigéen dañ koy am tey feebar yi gën a garaaw si àdduna bi tey te ñu dégg seen tur yi te mënuñu lim yëpp doy nañu sëkk bi Yonent sa sallallahu alayhi wasallam wax ne dafay faj mboolem feebar mhm. kon feebar ba te am boo ñu ko si sukaba sadat na jox huile bi na jox yeneen garab yi wuti ak huile bi tamit mhm. ndax façon garab yu bëri lañ am dafa ay fànn yu bëri lañ yëngatu ay lu bëri lañ am na ñëw benn par benn ko gis c'est ça mais soo ko suñu huile bi ni kàddu gu mujj bi mooy lan huile bi ndax mag kese boo koy jël wala xal ndaw tam mën na ko jël ndaw mën na ko jël waaye ndaw dafa am nu ngi koy jëlee mag dafa am nu ngi koy jëlee bismillah ñu gis loolu mag bi mhm. nii la koy jëlee nii da koy jël def ko si meew su fekkee xale la ndaw la fi la ko yemale da koy xaaj si digg bi mhm. sotti ko macha allah dégg suba ak ngoon macha allah am na si ay bouteilles différents mhm. waaye nañ nañ xam ne ne bouteilles mun na changer at mu ma qualité bi benn la qualité bi benn la qualité Sissoko Habbatu Sauda boo gisee logo bi mhm. ak tur bi jeex na jeex na te produit bari ñu ngi si kanam. Mhm. li la am li mooy mboq jullit yi. incha allah lii baax na trop. jërëjëf jëm leen si gëstu. Mhm. ñu si Sokabat Sawda incha am lu leen doy. merci soo yàlla. loolu la mbokk yi ñun ñoo ko dëggandoo euh, mooy bu bees bi euh, bi ñuy naan huile Sissoko Habbatu Sauda euh, tey jii nii wax nañu lu tax mu génne huile boppam parce que qualité la bëgg indil nit ñi ak itam huile bi lu muy jëriñ ci yaramu doomu aadama tey jii nag ñoo ko dëggandoo kon ku si nekk nag mun nga ci ñëw jël sa wàll. ñun daal li ñu leen di wax mooy ni que euh, ñu jox leen dig daje beneen yoon ak beneen produit euh, si Sissoko Habbatu Sauda wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.